bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina moolana muhammadin alamin wa ala alihi wa ashaabihi altayibin altahirin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawm iddin bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh maa ngi leen di nuyu leen ziyaara ndokkeel ci safar wu tedd wi nga xam ne ak bisam bu màgg ba nga xam ne moom la ñuy sentu muy bisu fukkeel baak juróom-ñett eh, di bis bi sëriñ bi génne woon ca këram ga ca Mbàkke Baari eh, ngir dem ca tukkeem bu sell bu barkeel ba tam digle ñu di ko màggal ginnaaw bu mu amee diiru jamono kon ñi ngi ndokkeel ñëpp ci xew-xew bu mel noonu di ñaan suñu borom yeggale ñu ci ak jàmm te defal ñu tawfiq ba liñ ci digle lépp ñu def ca kem kattan te lépp sell ngir jëm yàlla te nangul nu ko te defal ñu ci ngaramu sëriñ bi waxtaan wi ñu ngi koy tënk rek ci benn tomb muy tomb cosaanul màggal cosaanul màggalu Tuuba màggal li muy tekki mooy réyal dara ak fonk ko ak wormaal ko yëkkati ko nga def ko nag ci ay wax mbaa nga def ko ci ay jëf euh, loolu moo tudd màggal baat bi loolu lay firi mooy mooy dara ak wormaal ko ak ak ko ak yëkkati ko ak darajaal ko firndeel nag euh, loolu ci ay jëf mbaa ay wax loolu moo tudd màggal wante màggal it bu ñu ko waxee li muy tekki nag ci eh, li ñu jublu mooy feet mooy bisu feet daal bisu feet mooy bisu sant yàlla ak bisu feeñal mbégte ci xéewal goo xam ne sunu boroom defal na ko jaam ñi eh, ñuy bég ñuy feeñal mbégte ci xew googu di ko firndeel ci ay xew-xew ak i ak kon loolu mot du màggal eh, moom nag bu ko nag aw tuur la kon ci bis bi nga xam ne moom la sëriñ bi digle woon ne nañ ko koy nañ ko ci santale yàlla saa yu ci at mu ne bisu fukk ak juróom-ñett ci weeru diggiw gàmmu cant googu bisu cant googu ak bisu mbégte boobu ak bisu feet boobu moom lañ tuddee màggal xam nga feet bi ne am na ñu tudd euh, bu ñu waree ba wari feet googu ñu ngi ko tuddee korite bu ñu àggee ci fukkeelu fan ci weeru tabaski xew-xew boobu ñu ci amal feet googu ñu koy tuddee feetu tabaski fukkeelu fan ci weeru tamxarit ñu ngi koy wooye tamxarit euh, bu ñuy fàttaliku bis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën a àdduna di ko màggal ñu ngi koy tuddee gàmmu bis bii nag nga xam ne su fukkeel ak juróom-ñett feet googu moom la sëriñ bi wax na nañ ko tuddee nañ ko ko nañ ko tuddee màggal màggal la kon loolu mooy bis cant mooy turu bis bi turu feet gi mooy màggal kon muy turu feet gi maanaam bisu cant bi ba noppi yóbbaale tegtalaale jëf yi nga xam ne moom moom lañ ci war a def sëriñ bi dafa amoon ay mébét yu kawe ak i jubluwaay yu rëy ci boroomam yu ci digganteem ak boroomam am ci amoon ko it ci digganteem ak jaami boroom bi ak ci diine ji ak ci bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mu tegoo ay nattu ak i jafe-jafe yoo xam ne mooy tax yàlla mooy mooy mooy mooy la koy jotale ci mébét yooyee te loolu bokkoon na ci nag suñ borom boole kook ay noonam ñàkk ci moom yërmande te bari pexe te wow xool wow xol ñu génnee ko teg ko luy xeeti fitna jéemal ko luy xeeti pexe ngir jële fi bakkanam ak gàllankoor ab liggéeyam tam war koo muñ nag muñ gu mat sëkk euh, dékku ko boole ko la ko ci yàlla yokkal ci ay natt yi boppam ñu ngi koy teg euh, loolu la fa laajoon loolu loolu nag ci bis bi ne la ko yàlla defalee tawfiq nangu ñaanam euh, daal di dogal diggante mag tubaab yi ñu jëlee ko fi yóbbu ko Gabon mu am fa juróom-ñetti at yu manqué tuuti pexe mu nekk ñu def ko ci moom ngir jële fi bakkanam ak gàllankoor ab liggéeyam ak dox diggante mag la ko tax a jóg waaye yàlla aar ko musal ko ba ba dara jotu ko bu ñu aaral ko bakkanam ak jëmmam aaral ko pas-pasam aar ko ci lépp loo xam ne pexe la mu ñaaw mu koy gàllankoor ba mu def liggéey ba mu waroon def ba mu àgg mu dellusiwaat ci Sénégal ba mu feegee ay at nag ci atam yi bi mu nekkee ba mu dikkee njaaram nag ba ci ba am fay at ci la joxe ndigal nag ginnaaw bi nga xamee ne eh, mbir yi nag la bëggoon lépp am na ko te mu ko amee ci sababu tukki boobu mu xam ne kon tukki bi kat eh, eh, ab natt la woon fitna la woon coono la woon waaye nag natt boobu ak fitna ak coono boobu ndekete xéewal la jëmmi natt bi ci boppam xéewal la ndax mooy mooy mooy sabab si tax li mu bëggoon lépp ci diggante bi boroomam mu am ko li taali bi bëggoon ci moom lépp ci seen diggante seen boroom ñu am ko loolu kon jëmmi bi natt bi ci boppam kon xéewal la euh, loolu loolu la gis moo tax mu jàpp ne kon natt boobu kat ginnaaw xéewal la goo moo ko juralaat yeneen i xéewal kon war na cee sant yàlla sant yàlla gi nag da ko war a biral fésal ko Euh, def ko sant ko ñunam euh, ngir firndeel mi ngi sant boroomam ci xéwal gi mu ko defal moo tax mu woote bis ci njaareem euh, waa màggi taalibe yi bokk na ca ca ci gën a siiw ci ñu ko ñu ko digal sëriñ Balla Fally Dieng nekkoon jot li taalibe yi bisu fukk ak juróom-ñett ci weeru safar saa yu dikkatee képp koo xam ne mbégam mbégum sëriñ bi sa mbég la na ko ci sant yàlla na ko ci sant yàlla def ay bernde pour pour deret def togg ay bernde jox ko jullit yi ngir sante ko ngir santale ko ci yàlla ci eh, dogal googu mu dogal tukkiim tukkeem ba mu tukki woon ba ci amee lépp mu am ko ci kon loolu mooy cosaanul màggal gi eh, kon mooy eh, ndigal la lu sëriñ bi digal taalibe yépp muy bés bu ñuy sante yàlla bu ñu koy santale yàlla ci anam ak def ay bernde ak mboolem xeeti jëf yu baax eh, yi ñu mën a def te yàlla rek tax tam sell la ñu sant ci yàlla ci loolu nga xam ne feew googu nga xam ne moom seen yàlla defal ci bis boobu kon loolu mooy cosaanul màggal gi kon ci cosaan nañ ko daa defee mooy bi bis bi ñëwee taalibe yëpp dañuy ñi ko man dañu dañuy def ay bernde dañuy rey ay gat ñu ko mën rey ay ay ay ay ay nag wala ay xar ñu def ay bernde euh, di di ko jox nit ñi ngir sante ko yàlla ci bis boobu waaye nag nekkutoon lu ñu laa daje ci bis ci barab di ko fa def waaye rek ku saa bis rek fu mu fekk nit ci këram day def loola rek te yéen ci sant yàlla loolu kon mooy cosaanul màggal gi waaw kay ci gàttal asalaamaaleykum wa rahmatullahi